Quindi la presa yàlla nag moom bindee noonu jamono muy dund ak dee dee dee la njëkk a bind door a bind dund mu mel ni tey dañoo am perte bu mag a mag a mag a mag Sénégal waaye perte bu mag ci at théâtre boo xamante ni macha allah ñëpp xamoon nañ ko Basiru Jaxate nag ci ñi xamul xam nga jaar na ci groupe théâtre yu bare bare bare bare bare lu mel ni daaree kocc ñu leen koy jaal di ko jaal waa ACOS di ko jaal mboolem koo xamante ne rek yaa ngi yëngu ci milieu théâtral bi maa koy jaale bu baax baax Basir nag nekkoon koo xamante ne vraiment Medina la dëkkoon man xamoon naa ko dëkkoon Medina vraiment euh, ci nekkoon nit bu baax ku yaatu nit koo xamante ne wax dëgg yàlla alalam it daaw ko woon boole kenn euh, jour bi ma koy njëkk rencontré euh, maintenant la ñu rencontré ci rue 22 man ma génnee ci bi moom mu jaar ci 22 ñu daje bi ñu dajee ma ma dajeeg moom rek euh, ma bëggoon ko jox loxo mu taxaw trois les bras ay loxo ma ne ko ah papa man de dama gis ni yow yaa may dëggal ni yaa loo yaa may tax ma samay stress wàcc mu daal di may song ndeysaan akolaat ma daal ma jamono nag dafa dafa dafa dafa doy waar moo tax xam nga rek te ñëpp bokk ñu yem moo tax bugguma bugguma gaaw bi sóobu ci nit noonu foofu la suñu xamee déparé mu nekk nag ku baax waaye nag euh, Bachir euh, dañu koy jàll ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité réew mi ci président de la république Macky Sall ak membre gouvernement bi yëpp waaye di di ko jàll ministre de la culture euh, ñu ngi ko koy jàll bu baax ndax kenn ku ne xamoon na taxawaayu Bassirou Diakhaté ci li nga xamante ni moom moo di milieu théâtral loolu dafa am ay pièces yu ñu doon siyee mais boo xoolee pièce su Modou Tall bi pièce bu mu marqué marqué la ndax boo xoolee scénario bi ni ñu ko doxalee ak parce que ni ñu liggéeyee ci ci théâtre boobu dafa am solo théâtre mooy théâtre Modou Modou moom kii kii Modou ndeysaan mu nekk nag koo xamante ni mun naa wax c'est une grande perte boo xamante ni réew mi perte nañ ko waaye milieu euh, milieu culture bi milieu théâtre bi ñoom it euh, ñoo defee ndax kenn ku ne xam na Basir Diakhaté yàgg naa bégal sénégale yi waaye yàgg na moom it euh, di def lu baax waaye yàgg na maanaam euh, di di boole ay nit boo xoolee sax ci yenn théâtre am yi nga xamante ni sax Basir da koy da koy da koy def maanaam euh, da ngay gis ni théâtre nit ci ëpp sax dangay xam ni rôle bi koy jox ni da koy joué ba joué ci lu nekk ci ginnaaw rol bi nga xam ni ay boole ay nit yooyu yëpp Basir Diakhaté da koy def Basir nag yàlla yóbbu na ko ci feebar boo xamante tëraloon na ko mu gaañu tey jii tax lañ ko moo war a nekk levée du corps bi foofu ci hôpital Abass Ndao ñu ngi jàll nag mboolem nit ñi euh, maanaam nit ñi bi nga xamante ci la nekkoon ñu ngi leen théâtral ñëpp di ko jàll rek ndax euh, kenn ku ci nekk ci réew mi mun ngaa jàllee Bassirou Diakhaté comme ñi nga xamante ni ñoom ñu ko mën a ak waaye liñ ci a dolli rek moo di moo euh, moo ñàkk ak koo xamante ni dañu dégal ay nit nag waaye koo xamante ni tamit foo ko njëkkaan a gis ci théâtre rek da ngay koy da nga jox woon man ndax ni mu boo xoolee théâtre bi mu jiyee woon te waxoon ni patron sama jabar am na doom jël jël doomu jàmbur yooyu yëpp nga xam ni dafa man li muy def waaye nag yàlla kenn du xëccoog moom yàlla suñu moom kenn du xëccoog moom ku soxlaa ku soxla da ngay ñàkk ñu ngi koy ñaanal euh, ci sama tur ak euh, turu Pikine TV yëpp ak euh, mboolem groupe bi nga xamante ni moom moo di groupe point com ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale ñu de di ñaan ci sama tur te ñaan yàlla yërëm ko jéggal ko yàlla xaare ko àjjana vraiment wax dëgg boo xamante ni wax dëgg yàlla euh, tiis la boo xamante ni na ci milieu théâtral waaye dal na ci euh, maanaam réew mi waaye nag ñu ñu ñaan yàlla bu may ñu xolu buñ ndax gannaaw ba nga xamante ni ci ko suñu borom di bind tàgguwuñu te duñ koy jëlee duñu tàggu kenn ku ci ne da ci jàngee ci demu basiru jaxatu bi kenn ku ci ne la ci jàngee ni moom basir moo dem tey mais suba mun na doon moom wala mun na doon keneen mun na doon keneen kon nañu jéem a rafetal jéem a def lu baax jéem a wax lu baax moom nag ci loolu la nekkoon fégal sénégalais yi wuy ji boromam tabaraka wa taala ñu ngi ñaan yàlla yërëm di jéggal ko waaye daal ñu ngi koy jaal ñëpp di leen ko jaal eh, yéen waa pikin tv waaye di ko jaal groupe yëpp waa pikin tv di ko jaal mboolem fu nit nekk rek day day bëggee ci yàlla moo koy jaar vraiment di wax ni perte daal boo xamante ni perte bu mag la ci réew mi jërë ngeen jëf